jër ngeen jëf mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati mbéttu kontaan bu baax a baax ñu amati baax tey ñëwaat fi nga xamante ne mooy Touba ñëw certifié nga xamante ne mooy Serigne Modou Touré Serigne Modou Touré mi ngay dégg sa jour may tudd Serigne Modou Touré Serigne ñëw certifié waat tey fii ñëwaat fii si Ndindi fas yéene waxtaan ak moom tuuti tey ci li nga xamante ne mooy ci mbiru mu ñaan parce que yàlla suñu borom may na ko ci ba lépp loo xamante ni ñu ci waxtaan yàlla doon njëriñu doomu adama yi waxtaan tamit ci li nga xamante mooy euh, tuuti ci màggal gi taxawaay màggal gi nga yi raj yi nga xamante ñu am tamit ci réew mi yàlla na yàlla suñu borom di fitna yi ci biir doomu adama yi yàlla wàccee ci ñoom xéwal yi sawan baawan ñu bàyyi suñu Mourou mu nuyoo rek ñu continuer ak moom waxtaan bi suñu Mourou ñu ngi leen nuyu baax di la siyaare hmm, abu maa ngi lay nuyu di la laaj sa jàmm di nuyu mboolem mbooleem journaliste Actubuzz yëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant di ñaan yàlla suñu borom yi tabaaraka wa taala sama kàddu gi fekk ci jàmm di nuyu mboolem askanu senegal di jiital ci nuyoo bi xalifa général de Mouride ak xalifa généraux yi fi nekk yëpp di ñaan yàlla suñu borom yi ko wa taala guddal seenu fan te gën a dëgëral seenu taxawaay te mottali seen yéene ba yéene bi nga xam ne si am nañ ko ci liggéeyal ko ci islam yàlla suñu borom mottali leen ko di ñaan yàlla suñu borom bi tabaaraka wa taala saxal ci réew mi jàmm di nuyu président ak ministère am di leen sant di leen gërëm di wax waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mame Touré balaa maa xuus ak yow waxtaan ak yow tey ci mbirum ñaan rek dinaa ñëw dugg ak yow ci tuuti ci li nga xam ne ci màggal gi añ gis ne tey jéggooy màggal gi def ci taxawaay yu am solo lool lool lool lool lool tax tey màggal gi tey bu ñu laaj nga ma ci mën a wax waaw di di sant sunu boroom bi tabaaraka ko taala bu baax mm-hmm. ndax màggal dafa nekk loo xam ne mm-hmm. sëriñ tuubaa moom moo ko woote mm-hmm. waaye bu dee fii ci dëkk bi nag sëriñ Fallou moom moo ko fi woote moo dajale mbooloo mi te màggal ak cant la te ku ñuy màggalal sunu borom bi tabaaraka wa taala lañuy màggal ndax yàlla sunu borom rek moo yelloo ak màggal sunu borom bi tabaaraka wa taala moo ne adduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen mhm. sëñ tubaa dafa ñaan sunu borom ba mu may ko mhm. sunu borom daal ne la in zakartum la na azidannakum ngeen di sant ma daal di dolli loola tax sëñ tubaa nag daal di woote ak cant mhm. ñëw leen santale ma sunu borom bi tabaaraka wa taala cant nag képp koo xam ne si ab jullit nga rek yelloo nga ko nga def ko sa digganteek sa borom ndax moom moo ko yelloo di wax nag alhamdulilahi rabbil alamina ndaxte borom bis bi nga xam si moom moo woote di Cheikhul Khadim dane fu ma waay toll rek ma toll la fa te lépp lu ci waay def tamit ren déwén da nga mën lu ko ëpp te loolu man sama jëm bopp doy na ma ci misaal doy na ma ci exemple maa ngi sant sunu borom bi tabaaraka wa taala bu baax a baax a baax di sant nag nit ñi nga xam ne si yàlla sunu borom moom la ma booleel ñoom la ma yàlla booleel mënuma leen sant muy sama client yi nga xam si alhamdulilah maa ngi jëflante ak ñoom ci mbirum ñaan mën naa wax ne sama cant ci bis bi mhm. bu jagee mhm. ñoom ñoo ko jagal tey dañ ne boo dajalee am mbooloo sa kër mhm. képp koo xam ne si yëkkati na ay xéewal jox la bañal na la gàcca bañal na la sutura su xawweeku ndax mbooloo ku ko dajale sa kër danga leen jox ñu lekk jox leen ñu naan jox leen tëdduwaay te loolu lépp nag soppe yi nga xam ne si maa ngi jëflante ak ñoom ci mbirum asraar ñoom ñoo ko fi def di jiital nag cant gi ki ma ci jiital kooku sama nit la muy Sidi Sidi Sarr. Mhm. ma nekk ci réewum États-Unis jënd na aw nag ku ponkal a ponkal a ponkal jox ma ko addiya mhm. di ci teg ki nga xam ne si moom mooy Fallou Dieng mhm. nekk ca Espagne yëkkati na ki nga xam ne si mooy Baye Paate Ñang ak Abdou Assis Faye nga xam ne taalibi suñu Alaaji Maalik la waaye wallaahi xéewal gu baree bari yëkkati na ko jox ma ko di ci teg ki naan Jibril Dia ca Gàmbi maa ngi koy sant di ko gërëm dama amut yéen ko fay nag ndax dañ ne teraanga képp ku la ko defal cant ko ba ñëpp xam ne cant la. dëgg la cant nag dana toll foo xam ne si ki ngay cant. Mm. <coughs> ki ngay cant mm-hmm. moom mën naa bañ a xam lim la defal waaye yow lim la defal xam nga ko mm-hmm. xam nga ko bu baax a baax di santaat ki nga xam ne si tamit nag mooy soxna Anta Sare ci États-Unis mm-hmm. ndax affiche yi ma defoon doon laaj sa su màggal moom mooy ki ci njëkk a tàbbal aw ñaqam te ci waa kër Sëriñ Omar Fuuti Tall la oh. kon loolu ak cant la di cantaat ki nga xam ne si moom mooy Aliou Faye ak Modou Faye ak Khadim Faye mm-hmm. ku ci nekk ci ñoom tamit yëkkati nga sa nga jox ma ko nga xam ne ak ki nga xam ne si moom mooy Dame jatra mm-hmm. ci réewum France ak mm-hmm. Ndiaga Thiaw ca réewum France ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ak Ndiasse Ndiaye di cantaan nag ki nga xam ne si mooy soxna Khadijatu juuf te mu nekk ca mameel di soxna Lamine maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm mënumaa lim ñëpp mënumaa dajal ñëpp ndax bu ma ko defee damay juum waaye clients yi ak soppe yi wax dëgg yàlla ñoom ñoo jagal bis bi ndaxte màggalu Touba mës sa ñëw ba ma fere ci lu mat 6 millions mm. te màggal di jàll fere naa ci 7 millions war naa ko ci màggal alxuraan karim lépp ci ñoom la jógee kon maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm amul benn dërëm bu ci jógee ci sama poste bi di sant Fallou Diop Italie mm-hmm. di santaat Cheikh Sille itali mm-hmm. wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ndax mën naa wax ne mboolem ndox moo xam na ko fi ñoom ñoo ko jaayante def ko di sant bu baax a baax a baax mhm. di sant Njaase Njaase te mu nekk ca réewum Espagne moom tamit maa ngi koy sant bu baax a baax mhm. kon alhamdulilah màggal gi nag mbir la moo xam ne képp koo xam ne taalibeb Sëriñ Tuubaa nga mhm. bu ñëwee war nga cee wane sa bopp képp kuy taalibeb Sëriñ Tuubaa bu ñëwee war nga cee sa bopp bis bii nga xam si Sëriñ Tuubaa amul lu dul moom bépp taalib boo xam ne si jàpp nga ne boo ci defee ñàkk war ngaa xoolaat bu baax a baax sa digganteeg Serigne Touba war nga kaa xoolaat bu baax a baax a baax képp kuy julli sax nag laa wax te wanewoo ci sa bopp war ngaa xoolaat bu baax a baax sa digganteeg sa borom xoolal yow yaay kan xool sëriñ bi xool tamit yaw fan nga toll sëriñ bi ak sëriñ bi lan la defal nga xoolaat ko bu baax a baax ndaxte ci biir am na ñoo xam sax ñu ngi koy dajji nan màggal ak cant di rey ay nag ak yooyu noonu dafa araam am na benn wahabi bu mag a mag boo xam dañ ko téewee ci prison bi mhm. yaakaar naa bu fa defee un mois ko ca la yem mhm. ba mu a suba danañ rey aw nag daal di noos ba ñëpp xam ne aw noos nañ yow ñu téela fa loo xam si matut un mois kii ñu tee ko ay mm-hmm. Mm-hmm. nga dàq ak cantam bëgg saxal sa cant mm-hmm. kon kooku xam na lan mooy li ci cant ki nga xam dañ koo téye ci prison bi matut un mois mu génn daan di suba danañ rey woon nag noos ba ñëpp xam ne danañ noos di cant kooku warta taxaw naan màggal bi daal moo tax ren gis ma ko benn yoon ma taxaw naan màggal bi daal parce que da koo def waaw kon lu baax fépp fuñ koy woote képp kuy jullit boo fa mënee wane sa bopp wane sa bopp man ñi def ci ñi ma yónnee teraanga yëpp amul kenn ku ci sama taalibe kenn ñaan gii moo ñu boole asraar waaye bëgg lu baax mhm. te xamuñu tamit fan la ñu jaareel lu baax bis bii di ñëw nga xam si mbooleem lu baax bis bii ku gën a yelloo mm. ñu jaarale fi seenu ñaq moo tax ñu profito profito def ci seenu ñaq di santaat tamit ki ñu naan Moodu mhm. ku ñu naan Moodu Touré ñu bokk tur ab commerçant bu nekk fii tamit ci Touba maa ngi koy sant moom tamit bu baax a baax di tàbbal seenu ñaq bari na lool waaye daal maa ngi leen di sant di leen gërëm kon loolu lañ mënoon wax ci mbiru màggal gi di sant tamit nag ki nga xam ne si nag mooy président Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. ndax màggalu Touba ren gii mm-hmm. képp koo xam ne si ñëw nga fi te yàgg fee ñëw mm-hmm. boo waxalee yàlla rek te yàlla rek a tax xam ne bii yoon li fi wàcc ci ay takk der mosu fee wàcc waaw bu fi daan am ak circulation bi mus amul ren lépp teg nañ ko ci yoon sonn lool nag amal nañ leen ak cant goo xam ne si nag moom mhm. mën nañoo xam tàmbalement bi waaye fa muy yem ñun xamuñu ko mhm. wax dëgg yàlla ndax muy guddi ak bëccëg foo tourné danga leen gis mhm. ren ngi moom wax dëgg yàlla li fi wàcc ci ay police ak i ak sapeur mosu fee wàcc bu dëgg dee dëgg man de mosuma cee teg sama bët kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant bu baax ministère de l'intérieur di ko ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko te gën koo dëgëral te yéene bi mu am ci taxawu ko ci Sénégal yàlla suñu borom mottali ko mook ñi àndal muy Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko man nag sëñ Touba dafa toll ci man noo xam ne si mënuma koo sax wax Ousmane Sonko ay jamono avant ñuy jël réew mi wax ju ñaaw ju nekk waxal nañ ma ko ci moom bëggut sëñ Touba bëggut waa këram nangam nangam waaye ba mu demee ba jël réew mi mhm. ma gis mu ñëw ziyaare sëñ Muntaxa toogal ko ci suuf mhm. laa ne kii bu doon taal réew mi sama yoon ci man intérêt Sénégal dama koy wax mu leer donte kilifa du wax loolu mhm. man sama yoon nekku ci man xam man sama intérêt ci lan nekk muy sëñ Touba képp boo ñëwee fii ci dëkkam bu sell bii di Touba. Hmm. gis nga fi ñu jàng ba yëy seen i kayit. jàng ba ne ar gis ñu tëdd ci alal ju dul jeex. Hmm. loolu lépp dañ koo jël teg fee dëdmal Sëñ Touba Sëñ Touba rek moo ñor. àddina passage la dañ fiy jaar jàll. Hmm. man Ousmane Sonko ak lu mu mën di mel. bu joxee wàccuwaay sunu kilifa rek lu mu def baax na sama yónneeku ci leneen te damay sax ci di ko ñaanal nag ndax pexey noonu bari na ñu ko yéene salu bari na waaye nag na xam bu baax a baax a baax li mu yenu moom mooy lan xam bu baax tamit ñi nga xam si am nañ yéene yi mu échec ñooñu sax jërul mu leen di bàyyi xel waaye yéene bi nekk ci xolam ci biir réew mi rek na dox jëm ca bëgg nañ ko ba noppi mm-hmm. te bu doon njuumte njuumte yu baree baree bari taxul ñu bañ ko mm-hmm. ndax gis nañ ne toloore na mm-hmm. mi ngi xam ne Sénégal ñëpp benn lañ ku nekk am nga ci wàll ci nekk nag la war ca yow ma ngi koy def kon kooku ñu ngi koy sant di ko gërëm di wax waaleykum solo lool li ñuy waxtaanee léegi-léegi ci mbirum màggal gi ak jéego yi nga ne tey doomu aadama def nañ ko ci ah, di ñaan tamit rek tout le temps rek li mais leneen li nga ne may fii ñu waxtaanee ko tuuti fan yi si réewum Sénégal ñëpp ngi ci njàq rek tiitaange dañoo gis ne rey yu bari deret bi ñuy tuur tiitaange am na lool ñu bëri ragal nañu Aziz Dabala ñu rey ko ci anam bu méttee moo ko xale bi nga xamante ne mooy waali barki démb ak démb saw ñu ñu démb depuis nee naa fin ba léegi ba keroog maa ngi gis ñu ngi annoncé ay moor yoo xamante ne tey yëpp nit a ko def mu nekk mbir mu métti lan moo waral moor yi nii. Mm-hmm. waaw xam nga loolu nag moom. maa ngi gën a soññaat tamit ñu yore wàllum nguur gi. Mm-hmm. sécurité bi luñ ko gën a renforcer doyut mm-hmm. ndax bëri na ñoo xam ne si jamono jii nii ci gox bi ñu rayee ñaar ñooñu bëri na ñoo xam si buñ tëddee duñ nelaw. dëgg la jàpp ne maanaam liñ def loolu mën nañoo tëdd ñu ñëw def leen ko. Mhm. muy lu doy waar. Maroc de man nekkoon naa fa. Mhm. doon fa sàkku ji xam-xam. Mhm. man ak samay xarit yu bari. waaye dëkk bi ñu naan Rabat. mën naa wax ne vingt quatre heures si vingt mbedd moo dugg laa wax de ba ci quatre heures ci guddi cinq heures ci guddi. da nga fa fekk ay policiers ak i gendarmes yu yor seen i moto di jaabante. na ab xuloo dong ba tàmbali woon rek police daal di taxaw kon nañ gën a yokk sécurité bi ñaareel ba tamit assis wallahu ahlamu yàlla rek a xam ba xam lu mu doonoon waaye ñun liñ mën a jàpp mooy ab jullit la jikko ju ñu xamul ci moom nag mënuñ koo seede ndax da ngay dégg ñii naan borom ñaari tuuri la ak nangam ak i nangam waaye wallahu ahlamu ndax loo xam ne si mënoo yëkkati sa mënoo yëkkati sa loxo dóor cib kaamil waat daane kii nangam la mm-hmm. kon la nga xam ci moom rek nga mën a wax muy ab jullit kon ab mm-hmm. jullit lañ ko mën a seedeel mm-hmm. te jullit googu nag bu fekkee ne mooy la nga xam ne moom mooy làmboog la baatin la ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yërëm ko te jéggal ko bokk na ci nag mu ñàkk kaaraange ci la bokk ndax dama koo yàgg a wax gis nga kaaraange dëgg dëgg dëgg dëgg am na ñoo xam ne si sax dañ maa woo daal dama jamono ji dañoo tiit ndax ku yebu wuti ji ak tul ba ku la jam du dugg waaye kaaraange dafa am solo ci doomu aadama rawatina ci réew mi dañoo nekk ci réew moo xam ne si réew mu mat a defaraat la na nguur gi man bu ma sañoon suba suba suba mm. nguur gi jële fi képp kuy njabarkat njabar nag ak ñaan ci alxuraan dañoo wutee lool mm. ndax njabar lépp deret la ak ay sacrifice ak ay fitiis mm-hmm. kortu bokk na ci li gën a gaaw ci rey mm-hmm. ndax bu ma juumul wax nga ma ci sa biir wax daal fii fukki fan rek yaakaar naa lu ma dix personnes dee nañ fi dee nañ fi mm-hmm. loolu nag lu yéeme na lu garaaw la lu doy waa la te dee yëpp mën nañu wax ne ay dee xabtal la ndax ñi koy def bu ñu rayee nit ki ba noppi dañ ci ànd ak réccu gu tara tara tara nga xam ne kii defewu ko sagoom yooyu yëpp nag ay mystique la yoo xam ne si ñi ngi koy def ci réew mi di ko sànni muy lu doy waar ay korte moo tax ku yebu wuti kaaraange kaaraange mën nga koo am dëgg-dëgg kaaraange boo ko amoon am na kaaraange fi àgg foo xam ne si nit ki du la xool mukk bay xalaat ci yow lu ñaaw mukk du am mukk mukk man dama koo yàgg wax yor naa fi kaaraange goo xam ne si tey jii boo ko takkoon mhm. wala nga sangoo ko mhm. billahi lazi la ilaha illa huwa nit ki bu yoroon paaka wala mu yor fetal bu yëkkatee loxoom dootul wàcc barkeb alquran karim bu yëkkati woon loxoom bëgg koo jëmee ceew du wàcc am ci kaaraange goo xam ne si nag boobu boobu la boo ko takkoon nit yor lekk gu bon def ci posen wala mu def ci tooge wala liggéey lu mu mën di doon sa bët bii bu ci tegee bala ak si ceew day këpp day këpp kort nag réewu Malien yi ak Kédougou ak Côte d'Ivoire ñooñu xam nañ ko bu baax a baax a baax ak Burkina ndax di utiliser lu baree baree bare korte waxtu wu guddi lañ koy sànni buñ ko sànnee waxtu wu guddi ku nooy bopp ku mu mënti dal mhm. weer woowu doo ci génn te faatu woo bala ngaa génn ci weeru da nga faatu dund ko àdduna gii nag képp ku ne la neexut daa nekk ci ay xat-xat waaye ku nekkut ci ay xat-xat <laughs> di dund ci ay conditions yu normal ah, kooku ba sañoon du fi jógee mukk gàtt fan amul ku ko soxla mhm. ndax gàtt fan moom képp ku dee da ngay tëdd di xaaraate rek mm. tëdd boo xam ne si xamoo kañ ngay jug nag ba léegi nii tey jii ñu ngi tëdd ci biir suuf di nelaw ba léegi nii te ku ci nekk nag sa jëf képp moom moo lay wettali ku ci nekk sa jëf lay wettali mhm. di ñëwaat tamit ci sëriñ si nga xam ne si ñi ngi yëngu ci wàllum ñaan mhm. képp koo xam ne si yaa ngi nekkoon ci yoon woo xam ne si du yoonu siraatal mustaqim mhm. fexee la yedd sa bopp nga jóg guddi nga xalaat sa digganteeg sa borom. dëgg la xalaat sa digganteeg sa biir bàmmeel. Mm-hmm. bu fekkee ne yaa ngi daan jëflanteeg nit ñi jëflante bu ñaaw. Mm-hmm. loo ko loo ci mën a bàyyi nga bàyyi ko ci. te lépp looy jëflanteeg ñoom nga jiital ci yàlla sunu borom. Mm-hmm. ndaxte man dañ may kalaameeg ñoom ñii naan ma dañuy jël seenub xaalis bu ñu leen laajee xaalis bu nag ba ñu yónnee leen ko ñu boloke leen ñii bu ñu yónnee seenub xaalis dootuñ jotati ci ay ñaan yooyu yëpp ñàkk xam suñu borom la rek waaw képp kuy def loolu man gëw ma ne ab sëriñ la ndax ab sëriñ dëgg dëgg dëgg lépp lu muy def da ciy jiital suñu borom bi tabaaraka wa taala ndaxte ab du jàng ba xam di jàdd aw yoon ndaxte sëriñ Touba mi nga xam ne si mooy sunu sëriñ dafa wax ne tallaahi lay sa yan faxu sax sax daa hindi suloo hiram si xayru hudaa mu ne waat naa ko ci màggaay sunu borom taagoogu noonu ci asraar 400 lay taxawee kon dafa waat ci toll ci juróomi téeméer yoon ci màggaay sunu borom ne amul lenn luy jariñ doomu aadama buñ ko dugalee ci biir bàmmeelam lu dul ak njub lu dul ak njub te sunu borom wax na ne yow matu lépp lu waaye di jëf moo xam muy lu bon moo xam muy lu baax moo xam muy lu lënd moo xam muy lu leer keroog yowmal xiyaam dana fas ci àdduna bépp hmm. te gàccey àllaaxira moo gën a tar ku àdduna hmm. ndax àdduna bi mën nga fay def ab ñaawteef nit xam la saa boo jàkkaarloog moom ci mbedd boo moytu sax da ngay defiyee mbedd ma ngir bañ mu gis la da ngay gêné wu li fekk mu ngi ci kaw suuf boo sañoon da ngay faatu ba kala xamaloon ñaawteef boobu dootoo ko gisati nga mën a nekk ci liber liberté léegi askantuma ak àllaaxira ji nga xam ne sii képp ku fa dekk dootoo deewati ah. ñu xamal sa gàcce ga nga fas yéene dëkk ak ñoom gàcce googu gën a targu àdduna fuuf te yàlla nee na la am la an na jahannama minal jinnati wan naas waat naa ko ci sama màggay keroog yomal xiyam naa feesal dell ci diggante ak ak jinne ah. sawara mu ne dinaa ko feesal ci diggante nit ak jinne kon nag amul xajj amul seen képp koo xam ne si la la suñu borom digal boo ca tegee man ngaa mucc ëllëg boo ca teguwul nag amal ci yow njortu lu ñaaw mhm. kon yàlla nañu yàlla suñu borom saxal ci ak njub rafetal suñuy xol te leeral suñu gis-gis ba duñ gis lenn lu dul borom bi tabaaraka wa taala mhm. kon baax mhm. jërëjëf sëñ léegi léegi rek ñu waxtaane ci mbirum kaaraange muy mbirum noob noob mhm. nag bu waxee bëri ay façon yi xamante ne doomu aadama yi ko ciy wax parce que nit mën na dugg ci xanaa ci am mbir wala dugg ci ab place wala dugg ci liggéey wala bëgg ci dugg ci beneen pour ñu noobal ko loolu yàlla bala ko mu jubóo loolu wala ni sa bëgg ñu mais seen sëy day yëngu lool ba ñu bëgg lu xam ne ay noob. Hmm. xam nga noob dafa nekk xam-xam bu jafe hmm. te ñu yombal ko hmm. nit ki bu ñu demee ba dékk la ab micro bul xool lu leex nit ñi wala ngay xool sa intérêt bopp bay wax lu dul dëgg noob lu jafe-jafe la ku ne la yomb na la yombut clients yi nag xëy na ñoo ma ci gën a xam dara ndax bëri na ñoo xam ne si jaar nañ fu bare baree bare te seeni aju saafara gut noob lu jafe la dafa laaj jël temps bu baax a baax baax a baax dafa bu baax nopp da ngay gis koo xam ne si daf la koy liggéeyloo bu la yónnee tey jii ne xaalisam tey suba mu bëgg la soññi. dëgg la te mbir mi dafa am aw yoon. nopp da nga koy jàppee comme traitement gis nga doomu aadama bi. Mm-hmm. biddiwoom ak raw xaanam ci semaine bi da cee am bis boo xam ne si ci la génn. ci bis boobu dafa am waxtu woo xam ne si ci la ñuy génn exemple tey jii la lan tey la alxames mhm. bu fekkee ne nag maa yónni dañoo waxtaan tey jii ne ba déggoo mhm. ndaw si rawaxaanam ak bidde moom war a génn mercredi mhm. mënuma koo liggéey suba mënuma koo liggéey ginnaaw suba bis boobu laa koy dàkk ci laa koy mën a liggéey gis nga aliwoo jii nii waat naa ko ci màggaay gi alquranul karim yi bu ma fi dugalee tey jii nii ak nopp ndaw sa nga xam ne si moom nga topp ci ginnaawam di daw mooy wëlbati ko toppaat ginnaaw di daw bu toppoon bu fekkoon yow yaa toppoon ci ginnaawam di daw fu nekk nga wër fa sonn lool lool lool lool lool mhm. bu ñëwee ndaw si mooy mujj sonn ci yow yow mën nga koo nopp ba nopp gi jàpp nga mhm. toog di ko daw dawloo ndaw si mën nay wëri ji ay sëriñ ngir du la nopp di defaat au contraire ba aliwoo jii nii mhm. koo fi dugal tey jii nii du génn mukk du mucc noob nag boo xamee nit ki waxtuwam waxtu wa muy génn ndaw si biddiwoom waxtu wa muy génn ak rawaxaana waxtu wa muy génn boo ko liggéeyee ca sensé lay jàpp ca sensé lay jàpp amul ma dem te ñëw waaye di yàkkamti te liggéey nag képp koo xam ne si yaa ngi ciy jëflanteeku sëriñ fexeel ba yow sa jëmm bopp nga am ngëm-ngëm gu mat sëkk sa digganteeg sëriñ ba bu ci sikk sàkk bu ci jiixi jaaxa bul ci ñàkk am xel mu dal ndax yooyu yëpp ay mandarga yoo xam ne si maanaam day joué ci biir ñaan gi day tax nit ki buñ ko ñaanalee mën naa bañ a nangu ñaan dafa yombut te jamono yi di dañ koo yombal léegi ku jug daan am ñaan kan nga sëriñ bi war naa sell ci digganteem ak boroomam war naa sell tamit ci jëmmam sell ci digganteem ak boroomam mooy mu ragal yàlla ragal yàlla gu mat sëkk mhm. am tawxiid gu mat sëkk ci digganteem ak boroomam mhm. sell gi mu war a sell ci jëmmam na fexe ba jëmmam ji bu mu am sobe mhm. sobe mukk ñaan dafa laaj yow bi ki ngay ñaanal boo demoon bay yëkkati xalima di ko bindal wala ngay jàpp kurus di ko ñaanal jàppal ba sell lu jiitu ngay jàpp sax demal sangu ji farata ba dañ ci ak sobe sell nga jàpp tamit ba sell mhm. bu fekkee ne dangay bind nga toog nga jàkkaarloog penku xalima ga nga xam ne si moom nga yor di ko bind mhm. lii nag xam-xam la waaye dama koy laabiré pour képp kuy sëriñ di ñaan rek taxamoo yoon wi mhm. xalima ga wala big ba nga yor di bind nga tari ca juróom-ñaari fatiha nga sol maxana toog jàkkaarloog penku penku mi ngay jàkkaarlool la nga ca bind nga xam ne si lépp da nga caa jiital sunu boroom waat naa ko ci màggaayu alxuraan karim ka ngay ñaanal bu sellee bal bu tàkk lay doon bu koy jëfandikoo aajam yëpp di faju waaye ki ngay ñaanal bu fekkee ne dafa am sobe wala ñaari la muy njaalu bari la muy mm-hmm. mooy yàlla du bari mm-hmm. mën naa naqaree ñaanal boobaa nag sëriñ ba koy ñaanal mooy sonn faaw mu sonn nag ñaan nga mën a nangu ndaxte day déeraanteeg yàlla ngir mu mën koo jéggal ay bàkkaaram ak i ñaaw ñaawteefam fexe tamit dindi ñaawteef yi nekk ca moom jëm ca ñaan nga ñaan dafa laaj mm-hmm. ku yàkkamti wërta ci mbirum ñaan ndax bëgg sa aaj yëpp faju ci benn bis loolu mënta nekk ta nekk de waaye képp koo xam bëgg nga sa aaj yëpp faju nag bul yàkkamti sa àdduna mm-hmm. ndax loo xam ne gën koo néew du romb semaine mm-hmm. loolu jëru di yàkkamti waaye noob nag moom mm-hmm. mbir la moo xam ne si ku ne la yomb na yombut ndax dafa laaj aw yoon te yoon woo faa ngu matale ko beneen bi ñuy waxtaan rek mooy ci jamono ji ci li nga wax léegi léegi ñu bari nag ci moodu moodu wala ñi nga xamante ne tey ci mbirum kayit ñu bari lañ perte seen alal yi ci kayit. xam nga mbirum kayit dëgg la bokk na ci ñaan yi gën a metti ndax loolu wér-déem rek wér-di maanaam ginnaaw bi nga defalee nit ki ay ñaan ba yónnee ko ko. wér gi nga xam ne si war nga koo wér lu mu gàtt gàtt gàtt dana diire lu ci quatre heures de temps. man ni nga may gisee nii war naa ko ci màggaay sunu borom ak penk bii ma jublu mm-hmm. saa bu ma tëddee nelaw ginnaaw julli faral ginnaaw julli fajar ba noppi la julli suba ba noppi ci laay door a gëmm mm-hmm. te huit ba neuf dana fekk ma yéeg ma jugaat mm-hmm. moo tax sama yaram wi du tàqalikoo mukk ak mettit ndax dafa manqué ay nelaw ba maa ngi xalaat sax xew-xew yëpp bu jàllee ma jéem a dem ca réewum Égypte xool sama wér gi yaram ndax liggéey bi moom wax dëgg yàlla euh, mbirum ñaan métti na de <laughs> wallaahi lu méttee méttee la métti <laughs> na trop trop trop moo gën a métti foofu nga nekk ci alimentation baa nga nekk ci ay palaasu kànkaayir wala nga nekk ci mécanicien wala maçon wallaahi liggéey ñaan a ko gën a métti ñaan feebaru hémorroïde yomb na ci mmh. bologement yomb na ci mmh. deret ju taq yomb na ci mmh. euh, jalis yomb na ci ndax toog bi ngay toog ba noppi maanaam nga tëw tëw sport di jëfandikoo ñamu xorom ñamu suukar rawat na ñamu suukar di ko consommer bu baax a baax kooku te doo ñaq kooku nga maanaam nga nekk ci wér gu yaram du yomb loolu lu méttee métti la te jàngoro yooyu dajale ci saw yaram nag mën naa doon jàngoro yoo xam ne si mën ngaa jaay sa kër sax di ko def ci saw yaram te du kon loolu lu méttee méttee métti la buñ jàpp ñaan lu yomb la yombut mm-hmm. a ah, ci kaw ku dëggal te tegu ci yoon wa loolu mm-hmm. yombut mm-hmm. xaw ma nag keneen waaye mbirum kayit nag man képp koo xam ne si jëflante naa ci ak yow man dama lay wax lu leer boo amee CP ñaan nga ma yónnee la ko nga jëfandikoo ko nama la ko digalee mhm. waat naa ko ci màggaay alxuraanul karim ak penk bii mhm. doo am ñetti weer te ci say kayit sama kër gi nag laa nekk nag ba ma dalee yëngu ba léegi nii mosuma jug ci sama kër comme maanaam dem Dakar luy appartement wala dem Thiès luy appartement mosuma koo def damaa gëm ne nit ki boo yoree lu wér mhm. foo mën di nekk ko la soxla lan la fekk si bu dee nekk nag bitim réew di xalaat nu def ba jot ci ay ñaanam numéro CPM la ñu soxla CP bi fu mu mën nekk moo xam muy Mbour wala Thiès wala luga wala Kaolack wala dakaar oto yi nga xam ne si ñooy def course diggante yooyu lañ koy jox ñoom ñoo koy yóbbu ba ca CP ba ñoo jox ko ko mm-hmm. te ñun ñooy fay transport boobu noonu alaa ku laxal mm-hmm. waaye boo ci jotee nag moom lañ la ko digalee nga def ko ñetti weer yooyu noonu doo ko romb te amu te jotoo say kayit mm-hmm. boo jotul say kayit suñu kër a ngi nii boo ñëwee ñu joxal la sa alal fas yéene wuñ mukk lekk alal ji doomu aadama ci ak neen ba leen lekk alal jàmbur ci ak neen mhm. xalaatuñ ko ndax jàng nañ ba dañ ci ak réer te xam nañ tamit lan mooy riba mhm. te yàlla nee ci alquran la taakuluna riba bu leen mhm. lekk riba muy alal ju lewut des fois nag da nga gis yoo xam si danaan la booy ñaan ci ngir yàlla lan moo tax ngay nit laaj weexal ñaan ci ngir yàlla ñun yàlla sunu borom wàcc gi ñu wàcc ci suuf sax dañ cee tegal ay condition dëgg la de ndax digal nañu ñu jaamu ko tere nañu tamit ñu bañ kaa mooy mhm. ñu moy ko tere nañu ko mhm. digal nañu tamit ñu jaamu ko mhm. kon ci condition ba mu ñu digalee loolu ba noppi tamit am na lum ñu dikk yaa ngi dégg Abu Saïd al Xudri dañoo mës a tukki ñoom saxaaba yi yàgg naa kaa wax ñu dal ci ab dëkkub yéefar yéefar bi jaan daal yu koy mat ñu war koo lugg te wër nañ ba sonn mënuñ koo lugg biñ gisee nitu Muhammad yi ñëw ci moom daan leen luggal leen ñu ko fekk na ñoom dañoo xiifoon ñëw ñu war leen a ganale te ganalewuñ leen hmm. Abu Saïd al Xudri daal waaw mën nañ koo lugg moo jël ay responsabilité am hmm. hadis bi mi ngi ci saxiixul Buxaari yi hmm. saxiixul Muslim tamit indi na ko ba ci fataawaay ibnu Taymiya yi sax mi ngi ci léegi bi mu na leen luggal leen ma ko a Saïd daal da ngeen ñuy weexal comme weexal gi ñuy wax ci mbirum ñaan ci benn màtt màttum jaan mu ne la luñ koy weexalee riwaayaat yi muy nettalikat yi dafa bari mhm. ñii nee nañ junni xar la ñii nee nañ téeméeri xar la ñii nee nañ ñaar fukki xar ak juróom-ñaar la ñii nee nañ fukki xar la waaye dafa wutee waaye yow xalaatal yow sa jëm bopp benn màtt màttu jaan nga laaj ci junni xar benn màtt màttu jaan <laughs> fii nga gis koo xam ne si daf lay di soxla boo xam ne si àdduna ak li ci biir la jëralu ko sax jox la njëgum xar kon kooku xamul àq ñaan tax àq ñaan dafay joué ci ñaan da ngay gis koo xam ne si boo leen di waxtaan ci mbirum ñaan nii sax day waxaale ba sonn te loolu lépp day joué ci ñaan nit ki bu ay mbiram dëgëree rek bu ay mbiram dëgëree bala ngeen a jëflante danga koy xam parce que ci jëflante bi rek bala ngeen déggoo day dëgër lool nga xam ne kii ay mbiram dafa dëgër faaw nga sonn ci ay mbiram mu door a saafaraw loolu lépp sëriñ bi da ko war xam <laughs> lépp sëriñ bi da ko xam da ko war a xam mm-hmm. léegi bi ñu laajee xar yi nag mu leen ko ba mu wér mm-hmm. dafa dem ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que foofu la saxaaba yi bëggoon ñu séddoo ko mu ne leen déedéet am nañ kilifa nañ dem ba ci suñu kilifa muy kenn mooy seen kilifa déedéet ñu ne nañ dem ci suñu kilifa muy yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. bañ demee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi <coughs> da a wax ne foo leen jëlee mm-hmm. mu ne dafa am ku jaan mattoon ñu ko doon lugg mu weexalee ñu ko mm-hmm. mu ne ci lan ngeen ko saafaraa mu daane ko Fatiha mu ne ko leen wax Fatiha day saafara daal di ree ne leen sédd leen ma sama wàll ndax loolu bu ko islaam dàqoon yenent bi ñu fi indil islaam dana la wax sédd leen ma sama wàll ci weexal ga <laughs> kon ko xamul di wax day am solo balaa wax mu laaj ba noppi ba xam doon a wax mhm. Sénégal nag dama ko yàgg wax ñi jàngu dañu ëpp ñi jàng moo tax réeral leen day yomb waaye ñaan dafa sax ci alxuraan te kenn mënu koo dajj télévision yu mag yëpp man pare naa pour def ci émission saxal ñaan ci alxuraan ku mhm. pare pour dajj ko ñëwal man maay fay plateau ba te déplacement ba ngay déplacé wu ñëw man maa lay fay sa déplacement wallahi lazim ku pare nag pour débattre ci xam-xam ñaan sax na ci alxuraan wala saxul ci alxuraan man pare naa pour saxal ñaan ci alxuraan yow nga ñëw pour dajji ñaan ci alxuraan ku ci pare rek bismillah man noppi naa waaw loolu am na solo loolu beneen ponk bi nga xamante ne tey maa la maa la ko bëgg a laaj ci mbirum li nga xam bay ci mbirum kàttan ci ñoo xamante ne tey euh, judduwaale ñu ko may dal ni dab jafe parce que bari na jamono ji nit ñu bari loolu tam feebar bu leen dala surtout su ñun ndaw ji nag la ëpp ah jamono ji ñu toll. xam nga feebaru néew kàttan barki démb rek nit woona ma ci. ne ma ndax man ngaa faj néew kàttan waaye nag daan ne ma nag waxuma nag calmant yi nga xam si moom la la maaraay di jox nga xam boo ko jëfandikoo maanaam pour nga am kàttan faaw nga jëfandikoo ko mën a door am kàttan mhm. nii la ma ko waxee xam nga yooyu calmant la nekkul luy faj mhm. néew kàttan képp ku ko bëgg a dindi ci doomu aadama ba mu set wicc mhm. faaw nga dindi ci moom ndoxum siti ci moom hémorroïde deret nga xam si dafay tax ay bloquement ay ulcère yooyu nga ko ci moom ba mu set wicc yooyu doomu aadama bu mu set ci moom dootu amati kàttan dafa laaj temps traitement la nga jël ay bitéel nga jox ko ko hmm. mën na koo jëfandikoo ci benn quinze jours wala vingt jours doodu hmm. hmm. tàqali ko kàttan yor naa loo xam si tey jii ne comme ni mu ko waxee noonu boo doon ànd ak sa soxna nga jëfandikoo ko toq kafe wala meew meew mu tàng wala kafe ku tàng nga jël nii ab ngëpp nga def ko ci xóoyal nga naan guddi googu yëpp doo ci daanu soxna say sonn waaye yow doo sonn mais loolu calmant la calmant la rek mais li ci gën nag mooy jàngoro ji nga saafara ko boo xoolee jamono jii nii Sénégal ñi am vingt cinq ans yëpp ñàkk nañ kàttan ñëpp a ñàkk kàttan dañoo néew mm-hmm. kàttan mm-hmm. li ko waral mooy dund gi dafa baaxut mm-hmm. mais Sénégal na ma yàlla jéggal ñi ëpp ci sama classe gi ci sëriñ si jàngoro boo leen wax ñu ne rab la néew kàttan ñu ne rab la da ngay gis ku gént di sëy sax ñu ne ko rab la te aka soree <laughs> man dama ko yàgg wax ci samay émission rab mënta néewal kàttan mënu ko du néewal kàttan mukk mënu ko mën naa xañe doom mën naa gaaw a yàq ci ay relation waaye néew kàttanu sëy rab mënu ko du liggéeyam sax nag mm-hmm. waaye ginnaaw Sénégal nag mbirum rab lañ koo ragal bàyyi ko xel luñ leen ci wax mën nañ koo gëm bopp bi metti ñu ne rab la biir bi metti ñu ne rab la néew kàttan ñu ne rab la di gént di sëy ñu ne rab la mm-hmm. te gént lii di gént di sëy gént di sëy mm-hmm. ak lii nga xam ne si moom mooy gaaw a daanu ci seq sa soxna dara nekku ci rab ki nga xam si moom lañuy wax amirul qays mhm. ndox mi dafa bari woon a bari maanaam ñu jégal ma ci gàdd gi man yu bi mhm. dafa bari woon a baree bari bu masaan yéeg ci giléem yi sax da daan tuuru mhm. xanaa bu doon ci sunu jamono ji dañ naan rab la gént di sëy ñi ëpp ci ñu koy def ay célibataire lañ bépp marié boo xam ne sii def na ko rek day xaw a gëj seq ak soxnaam ndox mu bari moom mooy waral loolu ndox mu bari ak koo xam ne si jot na ci moom mu takk soxna yàlla suñu borom da koy yónnee message xamal ko ne ko soxna jot na ci yow waaye nekkul ni képp kuy gën di sëy rek àndandoo rab la déedéet du rab loolu nañ bàyyi loolu rab nag am na dana yàqal doomu aadama jinne sax moom moo am ñun ñoo wax ñun ñooy wax rab rek ba tàmm ko kon nag dañ leen fekk si ci kàddu googu rab waaye rab amut jinne moo am rab dana yàq doomu aadama dañuy wax maanaam lan moo koy sabab ba noppi mm-hmm. ak tamit bu nekkee ci yow yan màndarga lay wane mm-hmm. di dugg ci wanag te léemu woo mm-hmm. dana ko sabab moo tax islaam jàngale la booy dugg ci wanag jiitalal sa tànku càmmooñ muy tànk góos pe nga wax onsu billaahi bismillaahi allahumma inniya onsu bika minal xubusi wal xabaayis jiital sa tànku góos pe booy génn nga jiital sa tànkub càmmooñ mm-hmm. muy pied mm-hmm. déedéet booy génn nga jiital sa tànkub ndeyjoor mm-hmm. muy pied droite nga wax xufraanaka lépp luy loraange lu nekk ci biir wanag yàlla dana la ci musal waaye nag boo ko du def àndandoo rab dana la yomb nekk ci biir wanag di wax dana joxe àndandoo rab nekk ci biir wanag di wax dana joxe àndandoo def bopp neen ci jigéen dana wala àndandoo rab awra góor buy feeñ muy óom yi nii jëm suuf dana sabab àndandoo rab ala kulli di saw ci taataa mm-hmm. dana wàññi wërsëg dana saw àndandoo rab mm-hmm. di tuur ci ab sën mm-hmm. dana saw àndandoo rab li koy saw bari na duy am ndoxum sangukaay mu jiitu la ci biir wanag wa ab diir dana sabab àndandoo rab di seq sa soxna di wax dana sabab àndandoo rab yooyu yëpp da koy sabab ak dox digg njolloor muy diggante quinze heures jàpp seize Hmm. loolu dana ko sabab léegi nag rab nag bu demee ba dugg ci yow ba lay yàqal léegi ci yan màndarga nga koy xamee hmm. dana am ñoo xam ne si bu leen di tàmbalee yàqal seen génn wàllu bopp gi day métti hmm. am na ñoo xam ne si waxtu leen bi mu di yàqal da ci am ci waxtu yi mhm. waxtu woo xam ne si saabu bu heure boobu noonu saa bu jotee rek mhm. dana am méttit bu tar bu lay faral di daane mhm. moo xam muy biir moo xam muy bopp méttit bu tara tara tar moo xam muy waxtu timis la wala tàkkusaan wala suba gi wala digg bëccëg gi waxtu woowu saa bu ñëwee rek tawal gi da lay daane loolu ànd noorab da koy def ànd noorab dana sabab tamit muy góor muy jigéen saa bu nekkee ci relation boo xam ne si pour maanaam takk soxna lay doon wala wut borom kër mhm. dana sabab ay xuloo yu ndaw di faral di am ci seen diggante seen diggante yàqu na yomb lool te seen diggante nag buy yàqu ci coow lay jógee te coow loolu bis bu demee ba jàll da ngay rée ci waat da ngay xam ne maanaam ka doon def lii du yaw mhm. waaye yow yaa ngi door a nekk fekk na jamono jooju moom dugg na la ba di la yàqal mhm. nga xam si boo duggoon cib sëy sax man ngaa gaaw a génnaat cib sëy bi ba boo duggoon cib sëy tamit doom mën na laa bañ a njaboot parce que dana xayi da nga gis koo xam ne si day doon borom alal ju baree bare baree bari waaye du lijjanti lenn ba mu sotti ñaari tamit alalam fu mu toll day dellu ginnaaw mhm. gis goo xam ne si fépp fu mu taxaw di fëgg rek ay mbiram day dëgër këcc mhm. du mën a lijjanti dara ba mu sotti àndandoo rab bu koy yàqal la ala kulli xarim mu nekk ay mbir yu doy waar yoo xam ne si doomu aadama buy dox ci kaw suuf war ngaa def la tout ba doo am àndandoo rab bu la yàqal mhm. danga nga bëgg a jëflante ak ay job borom millionnaire mhm. wala milliardaire wala boroomi teraanga wala nit ku àdduna wala nit koo xam si ku tedd la ku àgg ci yàlla mhm. waaye à tout temps rek day mel ne day am lu dox ci seen diggante yéen ñaar ba doo leen mën a jëflante saa boo jàppee ne tey lay mbir mi sot boobaa lay mbir mi gën a dëgër nga xam ne looy lijjant rek day dëgër mhm. kon àndandoo rab lu doy waar la te képp kum nekk ci yow nag jugal gaaw saafara ko dana sabab kër goo xam ne si ñu fa nekk ñoo bokk ndey ak baay te duñ mën a juboo ñoo xam ne si tey jii benn famille lañ duñ mën a nekk ci seen jàmm mm-hmm. Mm-hmm. gis koo xam ne si saa juree ak njaboot njaboot ga tawat da leen di yomb mm-hmm. ñii tawati biir ñii tawati da ngay gis ñoo xam ne sax daf leen di gumbaloo ñii da leen di muumaloo rab li muy def bari na lool sax lool kon lu doy waar la lu doy waar la mën nañoo jàll ci leneen jërëjëf suñu muturé xam naa kàddu gi am na solo lool ci li xam xamante ne mooy ci waxtaan wi ñu waxtaan tey ci mbir mu mbir mu ñaan parce que loolu saa saa génnee rek wax ay wax yoo xamante ni am solo la xam naa ne fi may tënki ak yow ci li nga xamante ne li amoon ci émission Diène wax tey tey ci mbirum li nga xamante may dugg ci xalwatu mu nekk mbir mu yéeme yéeme wala ak ci li nga xamante ne tey ci yenn ñaan yi nga xamante ne yaa koy defal doomu aadama yi ci àdduna bi waa xam nga mbirum xalwatu nag lu metti la moom tamit amul benn yenant boo fi tudd benn yenant nag laa la wax de te jaarul ci xalwatu bépp aajo boo xam ne si yaa ngi koy sàkk te mu bëgg mu gaaw mën nga koo jaar ci xalwat ndax moo ci gën a gaaw hmm. yëmut ak dara hmm. xalwat yëmut ak dara waaye dafa am condition yu mu laaj hmm. sëriñ bu ragal yàlla dëgg moom moo ko man bari na ñuy taxaw ci internet bi di la tuddal xalwat te waat naa ko ci màgg ak sunu borom fañ koy duggee boo fa defoon caméra surveillance dañuy nelaw bay bëgg dee <laughs> xalwatu liggéeyu guddi la mm-hmm. ba gi man ngaa nekk sa bopp mm-hmm. waaye guddi gi waroo cee nelaw benn yoon mm-hmm. man lu dul xalwatu sax laa la wax lu dul xalwatu wax naa la ko fii léegi man bala maa mu bët ginnaaw ji li fajar la loolu dama ko xas ba tàmm ba noppi mënatuma koo dindi ci sama jëmm ji mën naa dem benn kër di fa gan ganlu nekk fa gan di maanaam di bëgg def ay pexe pour guddi gi ma mën a dallu mm-hmm. ndax doomu aadama yëpp dañoo yemut am ñoo xam boo dul nelaw ci guddi gi mën nañuy ñaaw njort <laughs> ak loo doon doon kilifa ndax jamono ji moom moo toll foo xam ne si kenn daa wóolatut kenn mm-hmm. waaw waaye jëmme xalwatu sëriñ bi nga xam si moom moo la koy dugal daa war a laab mm-hmm. laab gu sell nag war naa sangu farata istixfaar lum néew néew néew néew war na cee dóor du toll ci mille mu darabu ko ba muy six fois multi multiplier ko ba muy six fois ngir tuubal sunu borom ngir laabal ab xolam ak wu làmminam jàpp ba sell néeg ba muy dugg am na rawxaan bu ci nekk kër goo mën di nekk rek kër goo mën di dem am na rawxaan bu fa nekk rawxaan mën na lay yàqal mën na lay jariñ am na kër yoo xam buñ añee duñu reer rawxaan wa mu laaj xëy na dañ koo xamul duñ ko jox xamuñ sax luy loolu xamuñ ko sax te fekk na rawxaan wala muy laaj moo tax ñoom buñ añee duñu reer bu ñu ndekkee duñu reer bis mooy ñëw rek ñu jekk-jekk rek maanaam xéewal gu yaatu dugg fa xëy na dañoo laal lu rawxaan wa soxla xéewal yi ubbeeku bu jàllee mën naa tëjuwaat hmm. léegi néeg bi ngay dugg di ci def xalwatu bi rawxaan bi ci nekk mën naa doon bu soxor mën naa doon bu laabiir hmm. waaye am nga ñaan gooy def ngir mu génn yaatal la ñaan googu boo ko defee te génnut yaatal la am na beneen ñaan booy def ngir yéen ñaar da ngeen fi mën a nekk te nga koy tënk ci jàmm ngeen nekk ci jàmm ak salaam léegi nag nga door a jublu nag ci mbirum waa ji jox ko àqab ju mat sëkk nag te nga seet ci yàlla sunu borom xalwatu kenn mënu laa wax sarax ba nga cay génnee lu dul ci ñaareelu fan ba sala lañ waree dëgg-dëgg sarax ba mm-hmm. jëmmi xalwatu kan kay duggal moom tamit na laab te sell te mu gëm la gëm gu mat sëkk wallaahi bu doon sikk sàkk ci yow yëkkati milliard jox la di sikk sàkk ci yow du ko jariñ dara la ko dul jariñ dara baa muy xel ñaar dara la ko dul jariñ mhm. waaye xalwat képp koo xam ne si duggal nga ko ca sensé te gisut boppam moom moo war a xool boppam ah bu fekkee ne sëriñ ba ragal na yàlla nag laa jaar ci yoonu moom war a mhm, jaar mhm. boo ci duggalee moom jëm boppam ci ñetti weer yooyu noonu gisu ci boppam na xoolaat boppam ban la amul yërënt bu ci jaarut nag laa wax amul yërënt bu ci jaarut te yërënt yëpp faj aajoo leen ci taxaw na jóg te bañ ci jaaree tamit seen aajo fajana kon amul aajo bu mënta faj waaye nag ki ngay fajal aajo moom mooy kan ak ban gëm-gëm la am ci diggante parce que sunu borom dafa wax la jàmm bi fa may njortu rek ci loolu laa koy sédd lan nga koy njortu rek loolu la lay sédd di avertise nag du ma ne sax di avertise di ñaan sama xarit bii muy mm. cinq tonnes cinq tonnes seytaane dafa bëri doole te fu rek lay dugg mm-hmm. coow lii nga xam ne si moom mooy riir ci internet bi ñu ma koy yónnee li tax mm-hmm. ñu ma ko yónnee li mu nekk sama nit a tax. dëgg la maa ngi ñaan mu jël coow lépp mu teg ko ci suuf. coow lépp mu teg ko ci suuf. Mm-hmm. amaana nag li mu doon sama mbokkum jullit. dëgg la ndax jaam bi fa mu mujj yàlla rek moo ko xam. dëgg la bul ne ci ay caaxaan la nekk ku bon la. parce que yow mi nekk ci lu leer nekk ci dëgg sax xamoo fa ngay mujj. man mm-hmm. ngaa mujj ci ak kéefar moom mujj ci loo xam ne si ku texe lay doon. jëflante rek moom lala la sunu borom bi digal muy ak diine ak muy diine laayante biir la mm-hmm. te yàlla sunu borom nag tegut benn bakkan lu mënu nag moo tax mu ne laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha mm-hmm. te lii nga xam ne si tamit maa ngi leen koy ñaan damaa gëm ne seen bakkan attan na ko muy jàmm ñu jël coow lépp ñu tegaat ko ci suuf muy diggante Omar Sakho ak Sa Thiès muy mhm. Balla Gaye ak rakkam yooyu yëpp mbirum saytaane te saytaane fu mu xajut faree dugg dañoo nekk sama mbokki taalibe nag nekk samay mburit samay mbokki mhm, mhm. moo tax ma sañ leen a digal lii bu fekkee ne dégg déggal nañ ma te cofeel ga wax ci sama diggante ñoom dëgg la ak ngëm ga nga xam ne si moom la ñuy wax ci seen diggante ak Serigne Touba man may ab sëriñ ci ñoom doon kilifa ci ñoom yëpp amaana bëgguñ sax maanaam mu àgg fenn fi li ma leen di ñaan nañ nañ xam ne ay julli lañ te julli dafa am lu yelloo loolu lépp nañ jël kas ak kàmb ñu gas ko ba mu xóot ñu suul ko yemale foofu coow bu ma sañoon de dootuma ko ci déggati mukk tey bu mu jógee ci émission bi tamit dinaa ko woo di leen ñaanal nag yéen waa Actubuzz nag bu baax ndax taxawaay bu rafet bi ngeen am ci màggal gi fii ci sama kër gi maa ngi leen ciy sant leen ci gërëm sant naa leen bu baax a baax a baax te gërëm leen du ma ne bu leen nag ndax effectivement Touba bu jot jamono jii nii saa leen ñëwee Touba sama kër gi ngeen di dal ba temps bi ngeen war a def lépp ngeen def boo leen doon am weer ci kër gi sax du ma seene mukk léegi nii rek gan yi mbuur yi nii di ma wax naa ma suba lañ bëgg a dem maa ngi naan dama cee am naqaru xol parce que bu ma sañoon dañuy toog ginnaaw maanaam dañoo nekk ci jamonoy vacances mën nañoo toog vacances vacances vacances ba seen dat jeex ñuy door a demaat bu dee ak dund dong bi fiy nekk ci ak dund moom mu ne sa jeexal ndax saa su nekk yàlla suñu borom ak ci xéewalam kon nag alhamdulilahi rabbil maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax wa aleykum salaam wa rahmatullah